xale bu jigéen bi lañu faat bakkanam ci Touba quartier Xayra mu ngi wuyoo ci turu Ndey Diop nekkoon élève ay atam toll ci fukk ak juróom mu ngi dëkkee ci quartier Soura ci dimanche bi ñu génn la ko seen waa kër mujjee gis mu tàggoo ne day dem jëli bulletin am booba léegi nag seen waa kër amuñ ci moom benn nouvelle ba ci talaata ji dëppoog le 5 juillet 2022 ci lañ yëg ne dafa faatu waa ji lañu njort ne moom moo faat bakkanam ndax moom sax moo yóbbu boppam ba ca police daal di dénoncé boppam ne moo jëf lu ni buñ sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jot xale bu jigéen bi ñëwoon na ci appartement bi nga xam ne moom la waa ji dëkkee woon ci immeuble Serigne Abdou Lahad bi nekkee ci xayra ci appartement boobu lañ jàppante ñoom ñaar ci ginnaaw jàppante googu ci la faat bakkanam daal di koy jël yóbbu ko ba ci kaw étage bi mujj dugal ko ci bërigo bi nga xam ne moo fa nekk muy réservoir yu mag yi nga xam ne ci la ñuy def ndox police bi mu yëgee lu ni mel ñëw ci bërëb bi ànd ak police scientifique sapeur pompier service d'hygiène ñoom ñëpp def seenub liggéey ngir génne xale bu jigéen bi nga xam ne moom moo di Ndeye ci biir bërigo boobu nga xam ne ci lañ ko dugaloon ñaari waxtu def nañ ko fa lii di néew bi dafa tàmbale woon a yàqu bi ñu génnee koor bi nag ci lañ ko def ci oto sapeur pompier bi dem yóbbu ko ca l'hôpital ngir ñu mën a def autopsie bi ki nga xam ne nag moom lañ jort ne moom moo ko faat mu ngi ci loxoy commissariat bu jannatul mahwa di xaar yoon def liggéeyam